waaw mhm. ah. mais man du ma damay taxaw daal maa xam nga sama père yu baa xam nga ñu may waajal boobu ba tey ay ñoom Maxime Bergan père Aliou ñu mhm. waaj boobu ba tey. mais souvent euh, dem bi est-ce que du yàkkamti combat bi. waaw dem bi yëpp mooy bëgg na fi jóge quoi parce que amateur duñ fi toog benn heure bi dina la mhm. xaar xam nga. ñu publicité combat yi ñu waaj boobu ba tey. xam nga ñëw nga bëgg taxaw léewtoo fa man mosuma bëri 10 minutes. ñaanuma yàlla ba ko. yàlla ma bëre ba bàyyi bëre mu bëre 5 minutes. bu ma àttee damaa wàcc kaw ko wala ko wàcc parce que gars yi dañ fay yàgg quoi. bii uh-huh. deux sama booy duñ añ. waaw uh-huh. xam nga di sonn nekk stade boobu ba tey du da nga leen teel a libéré après ñu firi uh-huh. daan nekk ci leneen wala lu yàlla ñëw ñu xam ni lool la. mais bii ndam la am incha allah. mais bii moom il faut nga taxaw xaar déglu. non waaw bu ñu nee que poids lourd la te neen daa am doole moom ëpp doole. mu ñëw. ma. waaw waaw parce que moom tamit dooleem bokk na ci li koy li koy li koy gaañ parce que souvent garga seetlu naa ni confiance bu mag lay ñëwee ci làmb pour moom kii bu la xoolee moo këpp doole mais kii dafa mel ni dafa loolu kii waajal na boppam de loolu boo gisee dañoo nekk ay xale rek xam nga boo nekkee xale moom entraîné gëm sa bopp da ngay jàpp ne adversaire bu taxaw sa kanam yaa ko war a mën mm-hmm. waaw mais boo nekkee tamit euh, ak ay nit dañ lay rectifier saa su ne mm-hmm. da ngay dem parfois am euh, def erreur mais boo ñëwee am erreur ñu recon nga reconnaître ko. ñu mhm. travail waat boobaa loolu lay dañ. Mhm. mais xaar no man ñaata combat laa fi bëre. Mhm. daanaka ñi nga xam ne maa leen song ñoo ëpp ñu ma song. ñoo ëpp ñi nga song n'est-ce pas mais combat bu nekk lu mu loolu lu mu laaj. <laughs> parce que wax ji bëri moom nee na dina taxaw. non non non loolu jaru ko wax ji bëri jaratu ko tey la jeudi. dimanche ñëw na bu pare. waaw. ah non il faut nga wax ak sa. non loolu jaru ko pour man instant bi jaratul wax dal. waaw parce que mooy loolu quoi. il faut daal nga man bëgguma wax yu bëri. bëgguma wax ju waaw ndax wax ji da lay. non wax tuuti jëf lu bëri moo solo. moo moo ëpp solo waaw incha allah. wax lu ndaw. dëf lu bëri. jëf lu bari waaw man moom ku ne xam na ne man du ma xaw ma ay machine ak ay yàggal ak yooyu. Mm-hmm. waaw. sa poids fu mu waaw man nag père xam nga man xale laa. yaa ngi ci 100 wala. wax dëgg nag xaw ma ñaata la exact. da ngay da ngay faral di posé wu ci. waaw de mm-hmm. dañ koy def quoi. di koy def mais bi yoon nattoo ci sa bopp. non maa ngi koy xool sax mais. mais <laughs> gisoo sa waay nu mu toll léegi xanaa. bëggoo fëgal a xam waaw dafa jël na poids jël na poids. waaw gis gisoo loolu. Ah, mais entraînement yu baax. xam naa dafa am xaalis moo tax. Ah, <laughs> looloo tax. <laughs> mais xam nga ñun ay xale lañ. dañuy entraîné rek suñu ra suñu yaram luñ ko teg rek da koy tegoo. loolu moo tax. ñaata yoon ngay entraîner par jour. waaw bi mu gënee yàgg nag doon naa entraîner trois fois par jour. parfois aussi ma yokk ko sax su ma jógee entraînement demaat def box. mais xam loolu booy wax ay fois yooyu ñu bëri dañ naan kii day caaxaan ak yooyu mais. mais la entraînement. non attends su fekkente ne da ngay yeewu. fajar parce que des fois ngeen entraîné entraînement yoo xam est ce que du ëpp. non ñun amuñu liggéey. claquage entraînement la ñuy liggéey. kon pour man amul lenn luy ëpp parce que ay xale lañ suñu yaram àttan ko mhm. waaw. kon daal trois fois quatre fois. waaw ñu ngi liggéey daal moom en tout cas. te bu bu la vingt neuf et incha allah. Mhm. dinañ si xam dara. dina fee soobee yàlla fëgg la ñaata jour ñaata yoon ngay entraîné par jour. man trois fois trois fois. trois fois yi lan la. le matin. waaw cinq nga jàpp footing. ñëw nelaw. ñëw dem saal dem saal. mais loolu loolu xaalis la de. ah yooyu moo tax sànq moo doon tuddal ko ci mel ni ay góor ak gaz xam ay sëñ Ahmad Mbacké xam mm-hmm. combat bu yàggee nii koor ga ba tey nga jëlee ko yëgaloo ko sa yaram parce que da am ñu baax ñu lay jàppale mm-hmm. jékki-jékki doon woo sax ñu jékki-jékki woo la loolu na mu dina leen dara ñu xam ñu wut ko wut ko mm-hmm. dundu mbër metti na ko naa. non mais dina parce que da ngay lekk li ngay entraîné noonu ngay lekkee bu baax parce boo ko deful moom leen ñu fàddaaw la. Hmm? ah waaw. Ah, dëgg la métti na mais nag euh, lépp dañ koy teg ci loxo yàlla rek parce que kenn ku nekk bu doon yow kese du sotti quoi. Hmm. comme nu ñu ko waxee am na gars yu baax yoo xamante ni dañ ciy jàpp. man am na sama grand Mor Thiam Père Gora Diagne mi day bàyyi yitteem suba ak ngoon guddeeg bëccëg ay bëgg a fàllu am na grand bu xam ni Pape Dieye wax dëgg yàlla dañ ciy jàpp bu baax quoi. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni maanaam ku lim da ngay jum. te nu bër laaj na lekk ak récupération non laaj na lu ne loo xalaat rek ci coono mi ngi ci. Mhm. waaw mais ginnaaw yàlla ñoo ñu ngi ci jàpp bu baax a baax a baax. cachet yi dong yorul mbër. no franchement ñun bokk. ñun ñu ci kaso yu ndaw yi. kaso yu ndaw yéen kaso yu ñu kaso yu ndaw yi. kaso yu ndaw yi ah. non yéen a ngi màgg si nànk nga naan waaw mais sant yàlla rek mais non mais gisoo gars yi ci 100 millions yi xanaa ñun foofu lañ bëgg a kii nag. borom saa yi waaw su ko defee ah. <laughs> Eh, borom saa yi duñ sonal kenn. <laughs> non borom saa yi dinañu wuyu dinañu ñëw léegi. ANCAR ka tundu tundu mbër. lekk gi. lekk gi entraînement. entraînement et puis est-ce que mbër yi am ngeen yéen seen médecin wu bopp bu leen di bu leen di toppatoo. waaw ah, man de am naa dëgg yàlla. Ah. moo xam ni moo leen di suivre. dëgg la loolu mënut a ñàkk sportif parce que làmb ji dafa toll foo xamante ni léegi nekkatul ñun kese. parce que buñ bu dee ñun xale yi kese xëy na du dem ko mais grand yi dañ ciy jàpp ñu ciy dugal professionnalisme. waaw euh, que ce soit li ngay lekk ak sa wàllu wér-gu-yaram yëpp lañ koy toppatoo. Mhm. waaw ci sama côté man quoi ci waaw. lépp la ñuy lijjanti. waaw ñu ngi koy lijjanti moom wax dëgg mhm. yàlla waaw. léegi nag gar ñaata combat nga bëree gum xam nga ko. man bëri naa onze combats. am ñaata victoire. am six victoire. six victoire. waaw onze combats six victoire. waaw cinq défaites. waaw ah fëgg la yow nag ñaata combat nga bëree gum ci arène. dama 17 victoire. yow da nga teel a bëri. bëri nag dama teel a bëri. bi ngay bëree gar nga bëreegul de wala. boobu bëreewul xalaatu ko. Mhm. boobu xale la. màgg la quoi. màgg bëre mooy lan. màgg bëre mun a jàngoo bëre. non non jaaroo màgg bëre non attends rek non man sëñ Modou bi mu may tëggal sama combat lees la tëgg man Kanji moom a njëkk tëgg ak Assane Baol. Mhm. yow sama premier combat bi ma daane yow laay ñëw nga may laaj ñaata at laa ma ne la laajal sos parce que instant bu ma la ko waxee doo ma gëm. Mhm. man bokkuma ak gars nga xam dañuy ñëw naan ay 18 ans laa am ay nangam man topp ma sax ci sos. kii bi ma ko wax naa la ko benn jour. Mm. am na benn combat bu mu bëri Amadou Bari dama taxaw ci porte bañ maye ba dañu daan doxee inte 3 ba Amadou Bari di suivre làmb xam loolu mag du ko def. boobu moom mooy bëri. moom moo doon bëri. nga ñëw nga ñëw dugg maye. billaahi ma taxaw ba bañ maye buntu ma dugg. tey jii ngay bëri moom. waaw mais loolu mooy loolu rek. nee naa ko nee naa ko nee naa ko. bu dee màgg laa kii magee na ma vingt ans mu naan bëre. <laughs> Ah, kii mën na la mag a vingt ans. kii kii <laughs> paa la. la jël naa mais ma wax la dara. boo bëggee dégg-dégg. Mhm. moom xam na ne du ma ak moom. ah lu tax. moom xam na loolu. maanaam moom xam na ne du ma ak moom boo déggee ma ne la màgg bëri la maman bi may am fit man di bëri arène maman damaa ñëw di wax sama papa am na combat ma gaynde mu may rey naan ma demal ba gaynde jàpp na ci laaw yi <laughs> pour mu leer ndoxu géej laa dem géej. sama kàddu. quatre butéel quatre butéel dem daan gaynde ñibbi si yaa ngi dégg sama benn gaynde bu ma pour làmb noonu quoi sama benn gaynde bu ma toog ni muy tagg Ousmane Toucouleur ma ne ko kii maa ko moom hmm. loolu tax ma continuer ci làmb hmm. ba bëre Ousmane Toucouleur daan ko damaa teel a bëre maag Tidiane Faye hmm. maanaam jamono ji ñuy bëre bu nekkoon léegi kon waxatuñ ko ak ni teg ci ñu ngi aw am ñu ñuy awala yoon ak boole làmb ji léegi amul yaaraw kii yaaraw kii dañ lay seet si fay la lu ko jar nga bëri parce que boo bëriwul keneen nga koy jël bëri. Mhm. di profito mais kii rawoo ko. di profito. voilà ki damaa war a bëri moom war ngaa bëri moom. di bu am 17 victoire 6 défaites la mu bëree bëriwul xaaj. mais non attends moom quand même ay. xam nga bëggaay làmb dafa am bëriwul ak ñoom. pour ñi ma bëree bëriwul ak ñoom maa ko ëpp combat foofu yooyu bi nga bëril moom bëriwul ak ñoom. xam nga làmb dafa am yoon. Mhm. Euh, làmb toll na foo xamante ni léegi defe naa promoteurs yi duñ dugal seen xaalis ci fu leerul. Mhm. ay maa raw kii kii bu ma rawoon duñ bëri mhm. n'est-ce pas kii instant bi maay challenger am xam na ma ko wax. déggoo li ma la wax waaw d'accord. xale laa moom paa la. dama ne ko. loolu la moom du paa ko doon ma dégg. non yaa wax ji Bécaye man la laaj yaa këf wax ji. yow maa a sedd parce xam nga xam nga xam naa du ma pour muy leer. Mhm. dama ne ko. li ma wax mu subaa lay comprendre. dama ne ko taxut moom ma bëreeg moom wala déggu ma Aziz ñetti mbër la ma waxoon. Mhm. jarul may citer seen tur. kon kooku bëgg na la tëgg parce que tëgg na la nga daanu n'est-ce pas. Mhm. ga laa jël avance bi. Mhm. ñetti mbër la ma tegal. man maa ko taamu sinon du bëreeg man na leer. lu tax nga promoteur yi ñu ngi dégg mais lu tax nga taamu ko. Aziz waa kay Aziz bu waxee bu pare parce que xëccoo bi laay bañ. lu tax mu taamu xaar ma pare. dama ne ko. billaahi wallaahi taala jaraluma ay fen kii. waaw mais li tax nga taamu kii laa. kay loolu nga wax moom loolu laa lay indil. waaw maanaam moom taxul ma jël ko ki tax ma jël ko mooy magam. <laughs> Zos ci boppam moo tax may bëri kii mais du moom. kon gisoo muy leer. bu dimanche di nga xam ne seetuma kii ci gouvernement bi man. dama koy seppi teg ne. da nga ko remandé dafa baax rek ku ne xam na ne fëgal kuy bëreeg moom. waaw même wax kat foog nga wax. parce que mooy loolu quoi. loolu ngeen di bàyyi xam nga lan moo gën a bon békaay. promoteur fay ñu xaalisam nga ñëw naan bu ko bëggoon jox. moom mi Gaston mi ngi may dégg bu fekkee mën naa wax tur quoi. waaw Père Gaston. Mhm. ma wax ma ko mais damaa xam ne am na ñoo xamante ni bëreeg ñoom ñàkk pexe la. kon ñàkk pexe la. non may ma tuuti rek ma àggali ma bàyyi ko fi dem jël les deux yàlla dogal aw ma ci ndam mais combat boobu bu ma ci amoon ndam xam nga du ma bëreek moom kon ay cadre kii maa ko dépasse loolu amu fi làmb ji xamal lu fi xew indil lal promoteur yi public bu baax bëre bëre bu leer ñu fay la xaalis. te loolu dëgg am na ñoo xamante ni ñi ngi fi def fi vingt ans demuñu fenn. Mhm. mais yàlla mooy dogal quoi man bàkkuwuma dew ma fenn xale bu ndaw laa. Mhm. du ma wax ay tardement parce que pour man defaguma ci làmb leen am na ñoo xamante ni ñoo ma fi jiitu xam nga mooy loolu noonu mais kii. kii lan loo ko nar a def. xam nga da nga ko nar a xam nga wax man mënu ma wax. waaw sa sa ko tax a jóg. non lam moom ku mu neex. ku mu neex.